Oui, Awadi, c'est vrai, avec sa technique pure, il est en c'est vrai, de démontrer toute sa classe au niveau euh, de l'entre-jeu. Bien joué Zal euh, qui surgit, attention dans voilà. Voilà, peut-être euh, peut qu'il va peut marquer. Oh. <laughs> ah, coup franc peut-être l'arbitre l'a joué. <laughs> C'était un coup franc que l'arbitre avait laissé jouer que c'était une occasion menaçante pour la presse. Et puis occasion complètement vendangé et que Zal, qui surgit et qui reste cette balle. Bien joué Zal, ses jaillissements, ses incursions sont vraiment très, très, très, très, très bonnes. Jean qui est en train d'arrêter toutes les vérités offensives. Voilà, donc non, le match va en Zéro but partout et que la presse continue de presser comme, comme de coutume et qu'attention. balle, bien joué jeune homme, bien joué. Oh, attention qui glisse et qui tombe. c'est un coup franc pour la presse. En tout cas, euh, qui est en train de bien jouer à dès l'entame de cette... Euh, euh, il reste quelques minutes pour la mi-temps et que peut-être le danger est toujours menaçant. Et que les récupérateurs résistent toujours. Ils ont vraiment une ont bob. bëri na ne li les récupérer, mais occasion ñoom dañ koy manqué parce que Zal moo leen jaaxal ñoom Zal moo leen jaaxal daf leen nakh. nax nax daf leen nakh. voilà Coup à coude avec les négociations du moment voilà dut na ko ma da koy ñàkk waaw da koy ñàkk da koy ñàkk da koo nax da koo ñax da koo ñax da koo ñax euh, donc nous acheminons vers la fin de ces premières mi-temps. L'arbitre en de consulter son chrono. Bientôt la fin de ces premières mi-temps. Une première mi-temps vraiment riche en, en perspectives, riche en couleurs. Aucune occasion de récupérateur, avec cette défense euh, hermétique euh, mise, en, place par la presse en tout cas. c'est une inquiétude, hein, une équation pour l'équipe des, récupérateurs qui n'arrive pas à avoir même une occasion de but, peut-être fortement eh, au-dessus <laughs> voilà bal nonu ngi noonu euh, ci ñi nga xamni ñoo di journalistes yi euh, journalistes yi ñoo yor bal ñu am coup franc dans les derniers arbitre bi nee nga tegaat bal bi ci euh ñu bañ a yàkkamti mu ngi euh ci digënté ñi nga xamni ne moo yi ak euh, wa moy journaliste département bu keur Massar bi hmm, c'est bon voilà bal baa nonu pour les journalistes coup pour les journalistes et qui tire Attention, attention, occasion à hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu, arbitre jeu non hors-jeu hors-jeu, hors-jeu, voilà mi-temps mi-temps euh, chilinga. Hein ah jël ko j'ai bien sûr bien sûr jël J'ai ko jël ko J'ai jël non arbitre ñu. dañoo dugal bii arbitre bi sàcc ñu ngi bëgg a yi premier mi di bëgg a rey mais gis nga match bi nu mu demee ñoom ay 10 occasion ñoom ñu am zéro occasion dugal bii arbitre bañ ko premier mi-temps non nañoo di dëgg non non non deuxième mi-temps dañuy tegaat fu ko nekkoon rek ah. ñii du may dara waaw ñii du may dara journaliste yi ñoo mën récupérateur dañuy dóor ba yëg seen kaw arbitre bi gën arbitre bi arbitre di di doon ñu gagné yow yaa ngi wa

ndax euh, deuxième mi-temps bi dañu bëgg def li suma père nag moo newoon mais deuxième mi-temps da ngay kii ma cher ko deng nga voilà euh, vraiment vraiment mu ngi noonu mo nekkoon ci premier mi-temps mo nekkoon ci camp yi machallah mais ki nga xamné ne moy mooy mooy euh, doyen mom mu ngi échauffer wu sànq ba légui mais nee na deuxième mi-temps dal lay xaar pour dugg ci li nga xamné moy terrain bi pour woné bopom mu ngi noonu kooku moy moy le grand journaliste grand Fall Ebe mu ngi non di préparer ak ak ben ak benn kawas ak ben kawas style bu mu nii style bu mu dafa grand ah. grand gis nga ben kawas bi ha ah. <laughs>

récupérateurs yi donc vraiment di ngeen di ngeen sant bu baax di ngeen gërëm ah, di gërëm ñëpp di wax ne daal récupérateurs yi donc comme match bi 2-2 ñu ngeen di jox rendez-vous euh, prochainement ñun ak yéen non dinañ leen dóor dóor yoo xam ne. waaw deux bi journaliste yi man maa ko dugal man maa ko dugal benn bi euh, beneen bi Ebe moo ko dugal Faag Ibrahima Faag bu bu bu bu exclusive moo dugal suñu deux bi yi moo dugal benn bi man ma dugal benn bi quoi bon récupérateur nag kan moo dugal seen bi parce que ñoom ay dañuy dugg di génn dugg di génn daa bëri ñoom ñoom daa mel ni mbëbës ñëpp a ñëw ñëpp mbëbës ñëpp a ñëw mais nag bon a wax rek mooy dèjà lii day c'est des gens responsables et c'est des c'est c'est des gens yoo xam aussi tamit vraiment xalaat bi nit di am ci mbëbës sa nañ teel dindi esprit bobu sen bop xam ne ay kër ñoo fa nekk ay borom kër ñoo fa nekk ay soutien de famille ñoo fa nekk ay père de famille ñoo fa nekk liggéey kese moo lañ fay def récupérateur ne veut pas dire vagabondisme récupérateur ne veut pas dire banditisme récupérateur métier la liguey la bon heureusement que Promoged am projet bo xamné ñu ngi koy prévoir ñu ngi koy prévoir pour def ko foofu noonu pour moderniser li nga xam ne moom mooy Mbeubeuss et je pense que euh, bu ko defee dina nekk bénéfice gu euh, récupérateur mais dina nekk itam bénéfice gu département bi en tout cas sant nañ di gërëm ñëpp quoi merci. bu leen neexee nag bu leen neexee bu leen neexee bu leen neexee bu leen neexee xoola owaat la ñëwaat ngeen préparé seen xam nga xam nga xam nga Mbeubeuss Mbeubeuss Mbeubeuss Mbeubeuss Mbeubeuss Mbeubeuss neewataanu Malika yii booy ëpp ñu ko mais est-ce que yéen sélection non si booy xool mbëbës dafa am benn équipe bu ñu wax jàmbalaay bu sës mbëbës ak daara ji booy yu si ëpp mbëbës lañuy liggéey mais lan ngay wax lan yi non li ma wax mooy ñu defar ju waat xoolal noonu ay sportif ñàkk nañ tey bu subaa nañ fexe non non non doolu leen nag soo ay bu leen xëy suba nag boo leen defee ni ba léegi ba léegi duñ football ah da ngeen di nangu naan leen ngeen préparé wu oo oo ñu beneen mas boobaa xoola day ëpp ambiance ngeen woo gël Mbeubeuss ñu ñëw ñu xamee xoola Mbeubeuss dëkk la Mbeubeuss dëkk la. jërëjëf euh, alhamdulilah comme tàmbali nañu match bi ci bisimilah jeexal ko ci alhamdulilah léegi match bi neex na lool tax na ñu la jëfee ñi nga xam ne ñooy récupérateurs yi. Euh, waaw man nag. ma encaissé ma benn bii waaw Bingel moo encaissé. waa ndax xam naa ne dafa fekk gars yi na rek xam nga ñoom euh, récupérateur yi ñun kaar dañoo xaw a sakkan ah ñun ñun ñun diis te ñoom mën nañ 40. waaw ñoom dañuy changé comme comme basket. loolu moo tax waaye xam naa ne boo amee retour initiative bi am na solo. loolu ambiance la vraiment man amoon naa jafe-jafe fan yëpp moom bopp bi métti waaye tey moom macha allah. c'est ñi match bi dañ koy joué waat. waaw match bi dañ koy joué waat d'accord tey jii dañoo ñëw assurer manquant bari mais teewul football bu rafet la leen wan ñoom nag dañoo fa rek am bii. voilà mais il problème hein? a au ça waaw. Ah il au ah, <laughs> et puis ah, retour. allez boo gis a le retour retour y na fekk gars entraîné y ñëw dem. donc euh, loolu man Donc, dama Lolo, demain avant match bi man waxoon naa malheureusement dugal n'a mais man donc awadi taal kan yi euh, donc deuxième bii bi tamit man maa joxe li nga xam ne mo nek nekk mo nek euh, comment dire je passe décisive bi Fall moom moo dugal donc mu nek match bo xam nak match bu ma neex la vous savez pourquoi parce que récupérateur yi des fois dañ leen di xawa am lu leen bët ñu leen di xolé mais woné nañ maturité woné nañ itam li nga xam ne mo nek deug deug deug ay nit lañ ay nit yoo xamee ne maanaam yu responsable lañ nit ñoo xamee ne eh, eh, voilà voilà ñoom ñoom dañoo da des fois dañuy dañuy dóor mais man nag damaa bëgg na ngeen jël sama bele blessure parce que ñoom blessé nañ ma te li may regretté ci match bi y avait pas de de de comment dirais comment dirais euh, croix rouge amutoon benn sapeur donc prochainement tamit président Awadi yoo nga bàyyi ci xel waaw parce que gis ngeen tànk bi waaw jël leen tànk bi waaw voilà loolu moo tax waaw voilà ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax. Eh, eh, du du deux deux zéro la deux zéro la deux zéro du deux deux deux zéro la <laughs> ñun bon maa ngi leen nuyu di leen gërëm bon maa ngi tudd Yoro Diop euh, di ah, sant journaliste yi di leen gërëm. bien vrai que joué nañ match mais nag ñun gagné 2-0 du 2-0 là, 2-0 la ñun ñoo leen gagné 2-0 bon c'est ah, suñu objectif bon dañu bëgg a population ni ni population bi ñom récupérer ñu dëkk euh, récupérateur récupérateur dëkkuñu foofu récupérateur yi dëkkuñu foofu sincèrement fi amul agresseur amul bandi amul vagabond ñun ñëpp ay ay responsable lañu ay père de famille lañu liggéey daan suñu dool moom moo ñu dugal mbëbës mais li ñuy agressé rek euh, li ñuy li ñuy adressé récupérateur yi loolu nekkul nekkul te yéen journaliste yi gis ngeen ko confirmé ngeen ko. parce que gis nañ mbooloo mi euh, mais gis nga xam ne moom ci indaale. Mhm. loolu vraiment exemple la mhm. waaw mais xam xam tey euh, récupéré mbëbës pare mun nañ ne sunu sunu sunu entreprise sunu àddina foofu la nekk. sunu lépp foofu la nekk ñun ñeewuñu ñu nekk si bureau bi di liggéey di fayee ko salaire ëppale wu ñu dara yàlla moo leen man nañ nekk foofu ñun ñu nekk fii kon nit ku nekk fa nga nekk yaay tax mu dox mais nag bul ne fii lay tuuree mbali rek ay ay ay ay bandee fa nekk salte fa nekk te parce ñun kon pare dafa amul ñun ku ñuy défendre loolu loolu amul ku ñu défendre quoi moo tax lépp lu ñu jël lu bon rek ñu teg ñu ko. ayca ah, fekkee fay ne.